ak euh, tiis boo xamante ne nii ci sénégalais yi la dal dale leen ca Maroc euh, ak euh, benn jigéen boo xamante ne nii àggoon na ci juróom benn fukki at ak ñeent moom moo faatu ci biir néegam ndax àndub cuuraay bu mu fa dugaloon nag moom moo tax ba mu mujj xëj yàllaa ci def jàmm sax nde kon am na yeneen njabootam yoo xamante ne nii ñoom la nekkaloon ci biir néeg bi waaye ñooñu mujj nañu mucc Xadim Mbay këriñ mën naa faat bakkanu doomu aadama li dëggal li nu mel benn sénégalais boo xam ni amoon na juróom benn fukki at ak ñeent faatu na fii ci Maroc gannaaw ba mu noyee lu baree bari ci lu naan gaz carbonique mbir mi mi ngi xewee ci quartier bu naan quartier populaire Sidi Marouf te sénégalais yu baree bari dëkkee fa soxna si ba muy faatu du wan moom kese ndax nekkoon na ak benn doomam bu jigéenam ak teyit benn xale bu ndaw ñu ngi wax sax naan xale bu ndaw bi moom moo rawale yaay ji ndax dafa yew woon ci coy ca noone la daal di voisin yi déggee lu ni mel ba daw dugg ci néeg bi fekk maam ji ak yaay ji tëdd ñoom dafa mel ni gaz bi duggal na leen ba ñoom sax dañ doon nelaw famille bi nag ñoom nee nañu dina indiwaat li nga xam ni moo di koor gi ki faatu ci Sénégal ci semaine bi noonu lañu ko xamle ñu ngi xamal tey ci ay témoignages ni mbir mu ni mel fii ci Maroc léegi-léegi dafay faral di am ndax seddaay bi ak tayit sénégalais yi bëgg di jaaru gi nii bëgg di jaaru ba tax ñuy dugal li nga xam ni mooy ay ànd ci seeni néeg rawatina tëj seen fenêtre ak tayit seeni buntu Xadim Mbay Casablanca rajo Futurs Médias